sañoon teral sa yaay. déglu leen aadama moo dégg ngeen aadama li may conseil déglu sa papa gërëmu la déglu yaay fa nekk te koy doxal gi naa la nga réew mi ak réewan dem fu mu mënti toll lenn rek mooy defoom mooy saaga yeeg yooyu teral ndayam aadama ku mu dimbali na leen aadama man duma ko taay wax chaque jour expliqué naa ko expliqué man mii barki Seydina Muhammad bokkoon na ku ma daan conseil ci sama sëy daal na ma teral ci sama sëy daan na ma yónnee xaalis man aadamoo moo tax aadamoo bi mu commencé génn di saaga nit ñi nii dama ko vocal ma ne ko yow lan moo la dal ak bi mu defee yaramu ne dama ko dama ko vocal gis naa nga yóbbu sa yaay waaye du musa daanu ci àddina li nit di am su foofu àjjana euh, doomu aadama mi ci ci tànku yaay te loolu mu wax noonu fu leer la ko teg fu leer la ko teg moo tax moytul leen ma ñun ñi ne ci internet bi rek amee internet bi di wax guddi di wax pëccëg moytul leen mi ñun genre yooyu ñun dañuy teral sunu ndey dañuy teral sunu baay doom yi ñu ngi rawante ñiy teral sa ndey di teral sa baay loo mën def ci àddina teralal sa ndey teral sa baay loolu boo ko defee nit mënulaa def ci réew mi lu la sax waaw bu ma jógee foofu damay ñëw ci jumeau Afia am boo leen woowee ñu ñëw vidéo la dugalee ko postel la ko daal di lay defaral seeni vidéo nit ñu baax nit ñu am personnalité nit ñu am tonalité dëkk Pikine bëgg deretu Pikine di dox rek te Pikine rek tax leen a ñor di leen wax happy birthday longue vie ci yéen loo leen dund doyul dund leen naw dund leen ba seeni may di baawaan ba ngay teral sa yaay booba yaa nga marché sa ba ngay teral sa papa ak sa yaay loo am di ko yónnee baxal na adamo budé dee benn fan sax mën na ma mos ma koo gindi man mam Ndiaye sabo metti lol ci man moy yone yónnee ma togal reet dima yone na ma jëndal yàpp barki Serigne fallu mak mo tax sama waji jamm rek ngay am ku la yéenewul jamm do am jamm barki Serigne fallu mak dem len ngeen fooyi I don't care man aw ma ta, bu may tok di jël sama vie di ko partager ak internet xam nga la la mën partager ni ambiance kaf foo reetaan toon ak histoire mooy sama fort bu ma ko bàyyee kenn dootuma dégg léeg-léeg nit ñi dañ lay kon dañ lay woo dangaa war a bàyyi histoire dangaa war a bàyyi xool damay tese ne yow mënoo bàyyi histoire ma ne ko lan moo tax nga xam ma mu ne ma histoire ma ne ko lan moo tax nga may seetaan du histoire bi naa ma ne ko kon yow yaay bàyyi wax togg ba mu ñor man lu ma taxaw ne mën naa ko mën naa ko lu ma xaw ne maa ko wax maa ko wax lu ma taxaw ne dama koy def maa koy def parce que sama liggéey dama ko togg ba mu ñor ba yàlla may ma ci li ma mën a taxaw kàttanoo ko moo tax guerre ak man dafa metti man booy guerre ak man te yoroo ay bal da sonn du fuy du réew du beew bi may tëdd ci territoire di liggéey barki sëy naa Muhammad samay xarit sax nawloo wuñ ma dañ ma daan romb sañta ba jekk dorten ta ak romb ma waaye tay ku ma ci rombul dooma romb gis nga nit buy wut dafa metti ma judd fekk fa jom ful la fayda personnalité sama yaay mi buun laa daan fekk muy sëy sëy bu metti ma fekk ko buun ko tiset la daal sol ak ak ak ak ak ak ak sër di jaay ay macaroni di jaay ay thon di jaay ay ñebbe ay suppu sama yaay bu da na tek beñe tek fataaya tek ay macaron bu ngone mu tek suppu man dama naan dem ba fofu di jënd de di tok di jappalé sama yaay buun té boobu ma ngi pikin di daw di liggéey di wut luma dimbalé sama yaay bu bu tabaski jotté wala korite ñëpp dañ dal dal ay darab man damay dem liggéey pour jënd sama yaay darap ak rido xotil sama rak man moo tax bu nit ñi di wax naan maam Ndiaye Savon dafa bëri tiital ay no sense di wax ah, woo yoonu Dubaay bi dégg na ñuy wax ku nekk di wax xamul man sama yaay dafa sonnon man sama yaay gënoon sonn senegal sama yaay ciso la daanu di wat ay dund man ñi ma toge man maam Ndiaye Savon barke Seydina Muhammad ku may téye dund bànneex da ngay gañu man dama dund bànneex ba yàlla jël ma man damaa tarbiyu sama baay tarbiyu sama ndey man sama yaay sama bi may nekk xale moo dàq kon ñëw pikin pikin ku mu ñawalul woon ku mu ñawalul woon ci àddina sama bu ko expliqué du question yërmande moo tax wala wala ngi man amat gisatuma ku ma yërëm sama àddina man kenn du ma yërëm ndax yàlla teral na ma pare lu ma dund loolu man dama tarbiyu sama baay man damaa tarbiyu sama baay tarbiyu sama nday loo tax lu ma am du saas ci man mérite la sama papa danaan tëdd ba xaaju guddi yor glacière ñu ànd man ak moom xel mi neexul suñu demee gunaas la ñuy toog ci mbalit ma mujj gi ñu daal daal di koy jàpp yóbbu ko rëfandari ba suma ma fekk sama hari ci koñ bi di rido damay tok di rido waaye damay jékki jek saay joy ñu naan lan ngay ko xolé damay am léeg luma nakari mais léeg luma du ma on fond duma nakari parce que fima jall mo gëna gën nek xalé am 12 ans sa papa xelam dem nga nek ak mom rëfandari ba mu metti ngay pass di dem di ñëw buntu Pikine la daan wacc di dox di dem sa pap buma ma suma su ñu jéng sa pap suma ma damay joy man lima dund samay mbokk sama raxee sax ñu ko ndax ne ñoom ñu dem sa pap ma nek taawum son ton di dundul ay nakar di dundu ay ay met yu ju gëna met ci aduna motax tax bu réew mi taxawé man dima waxal wax bu ñaan wala ñuy tok di wax naan dafa def ni, man damay xalaat ba moo tax jamono saytu dama naa maa tay baatu maa tay bi duñu xam on fo on fan nga ko jëlee mais da ngay xosolal ci dara. de nag am na ku ne am na looy nëbb ci sa àdduna loo xam ni tey daf la metti daf la naqaare mais Sénégal la ñu bàyyi di jeu doomu aadama.